sahaba yi nga xam ne ñoo raw keneen ku dul ñoom ci lislaam nekk fi ba jóge fi lenn ci lu nuroog loolu musuñu koo def bu ca mbaax nekkoon nekk lu ñuy bëggee yonent bi di ko ko màggalee di ko amee ngërëmul yàlla loolu mënul nekk lu lu leen di ump lu ñuy ñàkk xam ndax bu boobaa loolu ayib la ci yonent bi alayhi salatu jëf ju mel noonu mu réere ko yàlla jox ko diine yabal ko jëf ju mel noonu mu mën koo réere xamu ko saxaaba yi xamuñu ko loolu wérul xam nañ ko lu baax la lu leen ko tere woon def dara empêché wu leen pour ñu def ko dajaloo toog ne dañuy màggal sa bis bii nga judd at mu jot ñu màggal ko Abu Bakar rey fële nag Omar génn fële rey ay gélem ñu togg cin yay dàq yi mbana ya ñu naan dañuy màggal ndax yonent bi tey la judd woon sa at bu jotee wallahi bu nekkoon lu baax saxaaba yi jël seen alal yépp def ko ci bis boobu li ñu amoon ci ay gàtt yépp ñu rey ko woo nit ñi teral leen def nangam sàngam lu ñu xam ci xam-xam wala lu ñu ko mën a tàggee ñu toog fa wax ko ndax ñu ko gënoon mën a tàgg ndax ñoo ko gën a xam bu dee ay way yu neex yu ñuy way ay poésie ñoom poésie dañ koo nàmp ay arab lañ seen jamono jamono yi way la woon dañoo judd ci loolu ñooñu dàq way yonent bi fuuf waaye ñoom seen bëgg yonent bi daawañu ko ëppalantee ak di ci rawantee ci toog di neexal ay way ak di ko way yu neex di xaabaabal ak lu ne nga